saaga bi a ñaaw te wax du am bal du tàq fetal du jóg. pour lan mu dem a saaga. ak atum dóore ba fa yoo ko tasoon. dèjà yéen rek amoo leen ça va vivre man dèjà man sama ñàkk ça va vivre ñëpp xam ne ko ndax dof laa yoruma. mais yow nit woo nga ko mu ne la déedéet bul waxee noonu saagawu ma la xanaa sax yow sa yaram war a mën a daw. séquma ak yow loo may saaga man maa séq ak man woowu ma la yow yaa ma woo dama la message yow yaa ma message te li ma messagé man sama intérêt la parce que man maa jaay nekk ci internet bi boo gisee lu la arrangé danga may danga may woo mais erreur mënul ñàkk erreur mënul ñàkk tombe moo waral ay gaaf tombe moo waral ay gaaf mais saagawuma la sa bàjjen këf téléphone bi naan boo ko saagaa ma nangam taan sa ndey foog ne bu ma nee nangam taan sa ndey dama fay nekk naan ko du ma nangam sa bàjjen bu ma saagaa ndey damay tibb fi gën a ñaaw tam ko boo leen waxal wax xale bu ragal ma ko mais yow yaay kan ma yow yaay kan sa bàjjen di ma woo di ma di ma menacé naa ma li nga mën a wax mën nañu wax lu ko raw mën nga wax génnal direct bañ na ko ba yéen yéen yéen da ngeen a ñàkk saaba bi xam nga lu tax ngeen ñàkk saaba bi man dèjà saaga naa internet bi xam nañ ne man maa saaga mais yow waroo maa woo sa bàjjo waruma woo di saaga nañ ndax moom bu ma woowee saaga ma ne rek dèjà man sama reewande dañ na moom reewande moo dugg ndax mag bu wootee la ko war mooy mooy nee nga mooy sa bàjjan bu wootee ah yéen ñaar séqoo looleen saagante nday àdduna amul solo kii day jënd yow ngay jaay man bu ko defee man gàcce rey ma mag muy defar laa lay jàngal de dama lay jàngal àddina mag buy defar moom xale bi moo waroon a woote saaga ma man nday yow nga këf téléphone bi ne ma erreur de am na parce que nit ñi ñoo ko envoyé waaye waroo woon a saaga ma ne bàjjan maa ngi jéggal waaye yow bàjjanam nga réew panga la bandi woyu taxaw ne ma damay nangam taat sa day nga foog ne man boo ma damay nangam taat sa day damay taxaw naan la bàjjani sa boo ko woowee kooku amul audacieux saaga la nday yow war ngaa xam ne kii carrément jugul intation pour saaga la la laa di la saaga dama la xam xamuma la bokkuñu ñun ñaar fréquentation bokkuñu jëmukaay yaa ngi ci sa lëbër maa ngi ci sama lëbër lu ma séq ak yow ba di la saaga nday lu ma séq ak ba di la saaga lu ma jote ak yow dama la xam xaw ma seen waa kër xaw ma fu ngeen dëkk te yow nit sax bu saagaa ci internet bi yow boo ko wooyee ne ko saaga danga ma envoyé danga ma ne ma damay saaga mu ne la saagawu ma la li nga war a def mooy waaw dëgg la kay dëgg la rafetal mais sa bàjjan amoo daasiye këf téléphone bi di ma saaga ndey foog ni bu ma saaga ndey dama naan ko noonoo si ka man ku ma saaga ma fay li nga lekk ba reew lu ko raw laa lekk bay cappi-cappi bu ma saaga sa bàjjan bu ma woowee saaga ma ndey dinaa ko saaga ba ci digg yàq yow mën ngay si yéen yéen mën ngeen waxal wér ngeen gis que man dama ragal dara foo leen ma woo ma wuyu foo ma woo ma wuyu mais nit sax boo ko woowee erreur ñëpp lay da dèjà man li gënal li man dèjà rek moom ma taxaw ci internet di saaga nag bi may saaga Zalmay mi ngi ma naan Zalmay bi ci boppam mi ma naan ah yaa ngi ci direct bi chaque jour erreur yooyu sax dama koy def yaa ngi ci direct bi yaa ngi saaga yaa ngi ci direct bi. moo message nee na ci lii la bëgg xale bii la kii nii moo message nii yow yaa abal ma sama téléphone sa nday naan ma nii damaa faale de fal nday kenn. doon na eh, eh, maam ci léegi bu nga ne yow ah. eh xabaan kaay. kii de laa ko mun a noppi bu ko wax ci dara te mel ni ministre moo woote wala lépp. kii daa jëra wax noppi bu ko wane waxee ci wala ay naxasaay la bëgg da laa wax mun a noppi bu ko wax ci dara. pare fàtte naa sax maa ngi reetaan ndax kee ma kii. ne bindal ma pare naa ci maa ngi naan sama ndox di reetaan xanaa nit sax boo ko woowee. kooku amul audacieux saaga la nday yow war ngaa xam ne kii carrément jugul intention pour saaga la. lan laa séq dama la xam xamuma la bokkuñu ñun ñaar fréquentation bokkuñu jëmukaay jàng ngi ci sa lëbal maa ngi ci sama. moo message nee na ci eh, la bëgg xale bii la kii nii ay sa moo message nii yow yaa amal ma sama téléphone nga kat sa nday naan ma nii damaa faale lu fal nday kenn doon maam ci léegi kaay kii da mun a noppil bu wax ci dara te ni ministre moo woote wala lépp kii daa jëre wax noppil bu ko wane waxee ci wala ay naxasaay la bëgg dalaa wax naan noppi bu ko wax ci dara. yow yaa ma sama téléphone ah, naan maa ngi reetaan ndax kee laa doon xel kaay bindal ma ne kii bindal ma pare naa ci maa ngi reet naan sama ndox di reetaan xanaa nit sax boo ko woowee kooku amul audacieux saaga la nday yow war ngaa xam ne kii carrément jugul intation pour saaga la loolu laa dama la xam xamuma la bokkuñu ñun ñaar fréquentation bokkuñu jëmukaay yaa ngi ci sa lëbal maa ngi ci sama. kii na kii la Aïcha kon moo message nii yow yaa amal ma sama téléphone nga kat sa naan ma nii damaa faale lu fal ndey kenn doon. Eh, eh, maam dinañ bëgg na yow e eh, xabaan kaay kii da ko mun a noppil bu ko wax ci dara ci mel ni ministre moo woote wala lëpp kii daa wax noppil bu ko wane waxa ci wala laxasaay la bëgg da laa wax mun a noppil bu ko wax ci dara li nga mën a wax loolu la ñu a ma ne ah kaa bi critique na de kii saaga na ma yow dèjà man bi ngeen di wax man ah bi ngeen di wax man sax xaw ma ni woon kaa bi day critique yow bi nga saagaa laa xam ne kaa bi critique la ma ne la yow ca nangam taan mbay dëkkum dóore rëq gu mag ko moo ko moo ko fay ah dëkkum dóore ay rëq ko faj moom laa gisul saaga nday lan